rajo Futur Media mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax nuyu yi gën a sell nuyu yi gën a màgg di ndokkale ñëpp ci bésub gàmm bi di ñaanal ñëpp di ñaan ñi nga xamante ne ji ñoo ngi ci yoon ngir gàmm ji sunu borom may leen ñu yegg ci jàmm. gàmmu ci jàmm ak salaam ñi nga xam ne ña nga fayit euh, fa ñu nekk yàlla nañ fa nekk ci jàmm ak salaam ñaan yàlla ñu teewe koy at yu bare bare bari ba su ni mel ñu yàgg koy màggal fii ci Sénégal ñaanal ñëpp gàmmu jàmm ak salaam maa ngi nuyu bu baax a baax Aliou Ba moo nekk ci machine bi mi ngi dend ak euh, Amady Ndiaye may sa mbay ci digital bi ma nekk nag ak sama waa ji passe partout war a ànd ak moom tey ji ci xalaas pass maa ngi leen nuyu jaajëf Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu auditeurs yi internet ziar ñëpp di la jàmm di sàkku ci ñoom ñu ñaan ñu jàmm. fooy fooy fooy gàmmo. incha allahu rabbi dinaa gàmmoo fii gàmmoo fee. <laughs> fii laay waaje dem fee. incha allah. ñu nuyu partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci xalaas tàmbale ak waa Optic Vision Plus Sénégal di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne kenn du ñoom seen taxawaay ci gàmmu gi am na solo wane nañu ko ay journée de consultation gratuite de la vue bi ñu doon amal ci Madina Fall Thiès démb la jeex waaye nag Optic Vision Plus Sénégal mi ngi leen di xaar ginnaaw gàmmu ci boutique am yépp ngir ay lunettes yu baax te garantie ñu wàññi leen njëg yi ba tey promo gàmmu gi day wéy ci weeru gàmmu gi yépp ay yoo xamante ne ji dañuy wàññi njëg gi 50 pour cent la ñu ciy teggi yi loolu Optivision Plus Sénégal rek moo leen koy defal fu ngeen dem ci boutique mi nekk ci réew mi muy VDN bi muy fi nga xamante ne ji mooy Touba muy Louga muy Saint-Louis muy Thiès muy euh, Kër Mbay Fall wala Mbour bu ngeen fa demee di ngeen fa fekk ay lunettes yu baax lunettes yi ngeen bëgg ñu jaay leen ko ci njëkk yomb lunettes yu garanti nag te rafet Optique Vision Plus Sénégal si numéro téléphone di 33 821 54 57 établissement waa Kër Serigne Touba ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoo ñu indil gamme bi nga xam ne wala nga bëgg ci jënd di jaayaat loo soxla ci Gambie wool établissement waa kër Serigne Touba Fall frère ci 77 555 11 wala ngeen woo ci i bu ngeen ci bëgg tànn sa bu la neex la bu ngeen demee ci jaaykati téléphone yi wala suñu revendeur agréé di ngeen fa téléphone euh, i bi nag dafa nekk ci promotion kese lañ koy jaayee euh, téléphone bu baax la batterie bi dëgër na mën naa yàgg yàgg toll na ci cinq mille milliampères heure ñu koy euh, mu am kon lu toll ci mémoire bu toll ci cent vingt huit giga nga jënd téléphone Infinix Orange dina la may 10 giga de connexion 77 881 26 96 ngeen jokkoo ak ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy euh, équipe bu ñoom ñooy kon waa Infinix ngir ay information yu gën a yaatu ñu waxtaane déodorant bi nga xamante ne ji mooy Malaysia déodorant bu neex qualité euh, italienne vrai senteur toute la journée xet gu neex boo ko bëggee foo mën di toll del utiliser del jëfandikoo déodorant Malaysia am na Malaysia Uomo Vetiver mooy déodorant bi nga xam ne góor ñi ñoo tax jog am na beneen bu ñu naan Malaysia Fresh Care mooy déodorant pour jigéen xale yi également am nañu bonbon Malaysia di eau de toilette bu neex lool neex lool ci ci ci xale formule bu bees la Malaysia indi ko 33 823 09 98 wala 77 516 93 49. Real Mix Premium Energy Drink di boisson énergisante mm. naturelle bi nga xamante ne ji amul taurine amul spartam baax lool ci ku bëgg jàpp forme baax lool ci ku sonn ngeen mën ko am ci point de vente yi may bëgg a lim mooy Auchan Carrefour euh, Sakanal magasin Supéco Eden euh, ak boutique Total euh, Énergie savon Créole également di partenaire ci xalaas ñu leen di jaajëfal bu baax a baax savon bu baax la savon boo xamante ne ci lu ngeen bëgg ci saabu bu baax rek mi ngi ci am na savon créole euh, carotte am na savon créole miel am na savon créole citron euh, savon gommane yi ma ko waxee unisexe la baax na ci peau grasse baax na ci picc kanam vingt 33 822 99 17 ngir information yu gën a yaatu ci saabu bi nga xam ne moo di savon créole ñu jeexalee ak euh, Sisa batterie Sisa borom batterie automobile bu baax bi nga xamante ne ji ku ci bëgg da ngay woote ci 33 867 20 22 wala 77 236 51 70 wala 78 222 71 71 bu leen neexee ngeen dem fële ci Sicap Foire ci wetu gendarmerie bu Foire bi bu ngeen demee lu ngeen bëgg ci information wala ngeen bëgg ci batterie Sisa di ko am li ñu leen mën a daal mooy am na batterie haute am na batterie basse batterie Sisa am na 50 bu fekkee danga nga bëgg batterie de qualité supérieure boo bëggee batterie bu original bu mën a yàgg batterie bu baax taamul batterie Sisa ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom partenaires yi ñu gunge ci xalaas paas. naa wax ñaari mbir de. et eh, ci benn bi. màggal gi de joxoon nga paas. Mhm. yow mi waaw. Mhm. Ah. Mhm. joxoon ci màggal gi. taalibe Serigne bi. maa ngi nuyu sama xarit bu xees boobu nekk ci beneen côté bi <laughs> borom bouton bi. <laughs> yaa ngi cax de. xam nga ki may wax. Hmm. sama xarit boobu F borom bouton bi. ah. <laughs> ngi koy ziar bu baax. koy ziar bu baax ay message. kan ci moom. kan. moom sama xarit bi. <laughs> boo message boo ci bëgg. non message ko rek nee ko. waaw d'accord dinaa message. nee mu mu ku màggal di nga gàmmu. tamit. Aliou baa ngi yëglu. non non mu xamul ay ci F borom bouton bu xees bi kon. waaw <laughs> dinaa ko message ci kanam. message non léegi léegi. dinaa ko message. su élément bi dugal nga message. waaw jeex na yow koy loolu dañu boole. ay foye ñu dem. <laughs> Eh, dem. Eh, élément bi tey benn élément lay nekk jaay xanaa ko de war naa këram. waa ji. Mhm. ndeysaan jeune la. Mhm. jeune la bon ndaw la ko bu yàlla def mu teel a sotti. ndeysaan. nekkoon Sénégal. Mhm. ba ay année deux mille onze mu dem Libye. jaar Libye dugg Europe. dugg Italie. Mhm. yàlla suturaal ko nag ay buntam ubbeeku. Mhm. liggéeyam dox daal. lu mu laal mu nooy problème mu këyit mosu am fu mu dugal këyit am dinaa la woon léegi njaay passeport waa ay passeport am mbokk. Mhm. yi nga xamante ne dafa tukki ba ñu tamponné ko ba mu fees aller retour mais su ma nee la waa fii ma waxee yow nii. benn xaritam moo ko hébergé fii. te lépp famille moo ko yóbbee. amatul fu mu dëkk. te amoon na kër am lépp ba tabax seen kër. mais bi yaayam gaañoo. Mhm. ba problème dugg seen kër. Mhm. ci problème miraas ba. Mhm. mu ñëw am ñu mu faral ak ñu mu faralul. ci lay problème commencé. mbokk. voilà da ngay déglu première partie waa ji jaar jaar bi. ña jàppale ba ñu tourné jàkkaarloog moom. yàq ko. maa la lii yéexet. la ilaha ci Sénégal gi Njaay déet Sénégal kay santatul Njaay mu sant léegi ah, ñu ngi koy wër kay waaw temps yëpp Sall la santoon léegi nag ñoo ngi xol Sall ah waaw Sénégal kay santatul temps yi yëpp daal at yi ñu génn yëpp Sénégal Sall la léegi nag nu mu santee Sall ah noonu lu tax santul Sall man na sama ñun moom ñun Njaay nii moom jébal nañ may nañ leen Sénégal léegi man sama Sénégal santul Sall <laughs> kon baax na sama Sénégal benn sant la am <laughs> muy Njaay Ndour ah d' accord waaw ah, lu am nga ci droit. waaw ayca ñu déglu. dama bëri parti bi. Italie laa nekkoon. Libi laa jaar nag. moo bàyyi ko Sénégal yooni suuf laa jaar ba dugg Europe moo bi bàyyi ko eh, laa nekkoon Libi laa jaar dugg Italie 2012. 2012 laa dugg Italie. ma nekk fa nag ba 2014 bi si laa fa génn dem Allemagne nekk Allemagne mais avant ma doon dem nag wax dëgg yàlla yàlla dogaloon na amoon naa si mayoon chance wax dëgg yàlla dama amoon ma ma dugg si eh, si camp bi eh, dugal sama ansi mu génn maam humanitaire bi ko amee ma defoon formation maçon ñoom italien ñu ma def formation bi ma gis ne métier ba moo gën a gaaw ma def formation bi mi après mu pare ma liggéey liggéey naa fa un an si moratoore bi après bu liggéey bi arrêté nag si laa dem Allemagne 2014 bi si laa génnee Italie dem Allemagne bu ma demee Allemagne nag yàlla dogal tamit euh, ma amoon fa liggéey liggéey compagnie Mercedes muy ñuy defar oto yu bees yi Mercedes foofu laa amoon mais nag dama fa demoon comme nettoyage dama doon nettoyer waaw dama doon nettoyer foofu seen toilette yi ak vitres yi ak liggéeykat yi fu ñuy taxaw robot yi côté bu ñuy taxaw noonu parce que day tilim ñun ñoo yóbbu pour laa doon nettoyé loolu daal moo fa yóbbu woon alors ñu nekk fa nag ma nekk fa ma nekk ba ma ngi moom séjour Italie sama séjour su jeexee Italie damay dem retourner Italie dem renouveler ko damay jënd contrat mais ma nekk fa nag ba yàlla dogal sama yaay gaañ sama yaay na bu mu gaañoo bàyyi woon ay terrain benn kër bu nga xamante ni tamit man sama bopp sax ko defaraat mooy kër gu maire bi dëkkoon maire bi nag bu mu gaañoo bàyyi loolu maa ngi amoon ki ma xamante ni maam ñoo bokk benn yaay sama mag bu góor mu jël terrain yi yëpp jaay ko te boobu man maa ngi am ay mag yu jigéen nga xam ne dañoo sëyi woon si raison yi am na si ñu nga xamante ni yàlla dogalut seen sëy neex dañoo ñëpp si toog si kër gi mais après moom daf leen génne daf leen xamal carrément bii du ngeen fi toog ngeen ay dellu seen sëy wala ngeen leen luyee ci léegi nag si diggante bi bu mu nekkee ne bu meer bi gaañoo noonu ñu jaayee terrain yi woo nañ ma wax ma ko man sama bopp ma woo ko ma xamal ko wax dëgg yàlla amul jiit amul droit jaay terrain yi euh, parce que terrain yi ñëpp la amaana sax comme man man la man maa leen tane man moom wax dëgg yàlla tudduma tudduma si loolu dara mais ñoom mën nañ ko téye gérer ko surtout loolu si parce que man am na comme am naa kër nga xam ne tabax naa ko ba pare defar naa ko man fa laay dëkk mais warta jaay terrain yi nii ba mere ma si ma bàyyi noonu mu seet ma toogaal ba mu génnee sama grande sœur génne si biti ne il faut ñu luwee ji moom deux ans jaay na trois terrain ak gi nga xamante ne tey foofu lañ dëkkoon kër googu man maa ko tabax mu yàlla bi ko génnee leen ñoom nag ñu woo ma di jooy ma woowee di jooy mu métti loolu xam nga diggante nit ko bokk ndey te ñu ngi nekk jigéen ñu woo ma di jooy ñu ne ma il faut mën na ñëw parce que loolu dina métti loolu seen côté man tamit defuma dara ñu gis sama patron Allemagne wax ak moom mu may ma dem ma dagg sama billet billet bi dama koo dagg tey si ëllëg yi ma def billet bu seer laa daggoon ma dagg ma ñëw wàcc. léegi bu ma demee ma ne ko amoo droit nga génnee ñi man sama wàll mën naa leen koo bàyyee mais ñi seen wàll mënuñ la koo bàyyee parce que ay jigéen lañ te amuñ doole. xalaas. léegi xoolal Ndiaye passeport waa ji en attendant. Hmm. nga xam ne kii ku yàgg dem ñëw la. ndax li ma dégg. waaw wax yi borom xol bu rafet la. léegi bi seen yaay génnee àdduna. Mhm. bàyyi fi ay terrain. Mhm. ak kër magam bu mbokkal yaay jaay na terrain yi. magam bu mbokkal yaay. waaw magam bu góor. Mhm. léegi magam yu jigéen ñi ñi nga xam ne dañoo sëyi woon ñenn ñi seen sëy dafa tas ñu bis ci kër gi. waa ji génne leen kër gi. ku leen mag ji. waaw léegi bi ñu ko ko waxee nag moom mu jógee bitim réew ñëw senegal pour régler problème bi parce que kër ga nag moom moo ko tabax. bi mu ñëwee. Mhm. jàppante mag ji woo mbokk yi ba ñu miiraas kër gi ñu jigéen ñi féete benn côté mag ji seen mag benn mag féete benn côté. ci kër gi waaw. mu jàppale ñu jigéen ñi ba si fi ñu nekk ñu defar ko ba mu ñoŋ. Mhm. mag gi ne ko comme nag may jaay doole ak am alal di nga gis sama nag yow la. Hmm. waa di dellu bitim réew def fa weer. defu fa weer. defu fa weer mel ni ku ñu xabtal ne ko di ñibbi Sénégal oh mu takkee bagaasam ñëwaat. te xamul lu ko indi. xamul lu ko indi moom daal bi mu ñëwee ba Sénégal. Mm-hmm. dafa mel ni ku doon nelaw ñu jël ko dugal ci avion indi Sénégal teg mu yeewu gis na mi ngi Sénégal fa problème yi commencé. bàyyi liggéeyam. bàyyi vie bàyyi alalam fépp. Euh, tout. ñibbisi nii rek. comme loxo yi nen ak i kayitam séjour yu waaj jeex mu ñëw toog ba kayite jeex kon tamit te bi mu am xaalis mënu ko récupérer mu ngi fi toog. ñu déglu ko. mu ne léegi lan moo tax man bu ma fi bàyyi ko Sénégal yàggul ñii dama woo may daggaa sama billet day ñëwaat pour ñëw dama ko won ne ko man dama am doole léegi muudu muudu la dama am xaalis dama am këy may def damay def lu ma neex dal ma daal wax lu nekk mais yàlla dogal yàlla jàppale ma tontu yu sax tontu ma ko ma xam tey sama la lenn daal laa ko wax kër di leen ci leen ci mos a génne su leen naree génne ci kër gi ñu jaay kër gi parce que kër gi moom kese nekkul moo kese la ko jur jur ma jur ñeneen waaw mu commencé mu ne mu danaa ko xam def ma doon yërëm mais loolu jeex na man ma da xam man maa la gën a xam dëkk bi gën la xam àll bi gën la xam defkat yu bon ñu mu ñu nga xam te dañuy def lu bon maa la leen gën a xam wax ma leen mën a si bu dee yàlla nga rek man mënu si man dara ma woo samay nijaay waa ne nañ kër gi nag benn yoon mu koy génne su leen ko ndee génne rek ñu jaay ko suñ ko jaayee suñ ko miraase man li ma sama wàll ma jox leen ko ñoom ñu jënd si terrain ma tabaxal leen mu merloo mu ne léegi kër gi nañ ko xaaj ci digg mu miraas ko ci digg moom benn côté bi mu nekk beneen côté bi sama sëriñ nag nañ ko am doon tool loolu sax nangul naa ko ma faj mais moom si boppam mu xamal ma ne ma da nga xam fii ba déwén lépp loo gis rek xamal ne man ngay jaay ne tey da nga am toole da nga am xaalis da ngay mu am ay këyit da mën a dugg ak yoon bi génn te wàcc buñ ko xaajee si digg côté bu xale yi sama sœur yi bu ñu amee côté boobu la bi nekk léegi na sama nijaay ñee ne naa génnee xaalis ma jox ko pour moom moom dugal loolu mu génne trois cent ko si loxoom ma ne leen dafa robinet sama mag yi jigéen ñi ma yëkkati li may ma jox leen ko ma dem ñibbi ma dem Dakar sama bi dem ñibbi bu muy ñëw sax bii aller rek aller rek laa dagg dagg moom bii aller rek mais gis nga depuis bu ma àggee buggut tooguma fa lu ma vingt cinq jours wala trente wala vingt cinq jours wala ay vingt huit motu ko weer bi daal xam naa manqué na buggutuma passeport buggutuma dara Allemagne buggutuma fa dara dara dara dara génn gis toog Allemagne ak dee laa yem ñu ci Sénégal rek laay bëgg buggutuma fa dara su ma demee xëy liggéey yi sama patron sax liggéeykat yi ku ma si xool ma mel soo ma xoolee sama mer ma woote am ku ma woo sama benn copain ma ne ko man xam naa gëm naa dinaa naa si ma ne ko man damay ñëw liggéey ci Sénégal parce que man invité ñu dëkk bi woon liggéeyal ma te métti na trop ma ne ma déet ma ne ko wax maa ngi sant bu ma dem OM parce que OM soo bëggee ñibbi si su la neexee même bu dee am lu këyit mën nga fa bindu ñoom dañ lay delloo si mais ma def fi six mois te teg si lu gën a garaaw man sama séjour bu may ñibbisi boobu sama séjour mu ngi waay jeex boobu daanaka deux mois moo si des sama séjour day dem bay waay jeex na dem bindu pour ñibbisi mais man maa fi nekk ay six mois sept mois mel ni luy nekkoon sama bopp bi Sénégal bi nga xam ne moom laa doon gis ma bañ Allemagne toog Allemagne ak faj ak dee laa yemal mu mel ni ku nga xam ne dama nelewoon dañ ma maanaam daal dama doon nelaw ngir itam yóbbu ma yeewu gis sama bopp gis ne man caaxaan naa tey sama séjour jeex na man lan moo tax ma ñëw si Sénégal man nga xamante ni Europe rek laa ko pour sama bakkan bi laa ko yemale ma ma gis sama bopp nii nii nii ñii yëpp daal sama ko mu ma ma jaaxle samay kayit yàqu nañ sama place su yi ñàkk naa ko kayit yi jeex nañ mënatuma dellu xalaas. Ndiaye bu dee waa pare na de. déet waa ji waa ji li mu li li mu commencé expliquer nii bu pareewul lu ci topp leneen. lii kat fa la fa la coono mën a yem. xam nga dañ naan mbokk alalu yàlla la. Mhm. dañ koy wax. Mhm. doo ma laaj magam yu jigéen yi yu taxoon mu jàkkaarloo magam bu góor. maanaam ñi nga xamante ne ji ñoom la dimbale. waaw ba grand frère am gis ci boppam. waaw ana ñooñu. jiwoon nañu ak grand frère bi jàkkaarloo moom. cëy maanaam moom sërëm yi mu doon bañ ñu tumuranke waaw taxoon mu ñëw ba neexawul ak grand frère bi waaw ñu jël terrain tabaxal leen pour ñoom ñu baña a tumuranke moom bi mu nekkee ci problème waaw ñooñu dañu koo bàyyi dem ànd ji ak ñëpp ko jàmm ba xajatul ci kër ga génn na kër ga mi ngi fii Dakar ci benn kër ko ba am peut mais luy problème bi Ndiaye ñaata yoon nga dégg ñu la Sénégal wala bokk ñenn ñi koo ci jàppale. Mhm. muy tur na nekk sa premier noonu. waaw loolu mu am na. fii surtout ci moodu moodu yi Ndiaye tamit bàyyi ma waa ci réew xam nga li nga wax ni man maa ngi gis ñu bari de réagir par ay message bari na ñoo xamante ne ji coono bi ñuy dund. ñi ngi wax ne mbokk leen ko teg. mbokk mu leen jege xanaa xamoo lii moo tax ñu ci baree bare bari jëflanteeki jàmbur daf leen di gënal jëflanteek mbokk doo ma bàyyi doo ma bàyyi parce que jàmbur bi dana am lu mu ciy seet bu ma ko yàqalee dana ma tëj waaye bu dee mbokk bu gëmul yàlla li muy def mooy bu ma bu ma ko yàqee du mujj fen soo ñaan mbokk ñaan mbokk alal yàlla la loolu lañ wax non bu non xam na bu ñuy wax loolu nag mbokk mu baax a tax aussi ah, voilà bu ñuy bu ñuy wax nag loolu moom mbokk mu baax a tax man Ndiaye man gis naa fii ku fi jëlee frère fii yóbbu bitim réew héberge ko këram Ndiaye mu xëy biiral jabaram ah man maa la wax lii du kenn nettale que ku dund moom ko wax. jëlee frère am. frère am bu mbokkoon ndey ak baay. yóbbu ko bitim réew. héberge ko biir këram. bitim réew. bitim réew. France moom moom jabaram. moom jabaram. waa ji day wax bay jooyee ba ni ma instant. bii non non non loolu loolu bi deful dara jabar ji la. waa ji mu ma instant bii nii nii nii nii. Mhm. sama frère ak sama jabar ñoo dëkk. kooku bu doful ca France googu nag sant yàlla. est-ce que moom it takkul gelu jàmbur. lépp mën na nekk. ñu dem loolu beneen problème la. déglu waaj daaneel Aïcha. samay sœur yi nga xamante ni tey ñoo taxoon tey man ma bay ko fële ñëw jàkkaarloo ak sama mag bi sax. ba jotee ak moom. ba tey mu yóbbu ma si sëriñ daf ma li may def tey ba lii dal ma tey ñooñu sax gis ma ak di seet boutique la ñu yàlla bi ko juboo nañoo ak sama grand boobu man léegi man kes man dañ ma bett man di ñu toll nii xaw ma bopp man kenn mooy sama bopp mooy yàlla kese laa des deseewuma dara tey lu dul samay kayit maa ngi samay kayit yi yëpp nag maa ngi samay compte banque te li si gën a nit maa ngi fi yor benn compte banque bi nga xam ne moom laa si gën a nit parce que Allemagne bu dee dafa nekk da war a voyage ñëw Sénégal Sénégal bu ñu la soo àggee sa carte gab bi muy dox ngay mën a retirer sa xaalis man yoon boobu dem sama banque sax def ma te sama carte ban boobu maa ngi xaalis bi fii may wax ak yow sama carte bi am na xaalis mais mënu ma ko jot maa ngi samay siisug bu jeex maa ngi sama compte compte ñaari compte la maa ngi moom suñ paree dinaa la ko yónnee maa ngi sama code de séjour danaa la ko yónnee maa ngi sama carte résidence bi nga xam ne adresse Allemagne soo ko yoree kër dañ lay jox da ngay am benn carte da ngay am benn carte mu nga xam ne moom mooy wane sa adresse boobu moo ko saaru carte xamante ni tey moom mooy tax mooy boobu soo ko amul doo liggéey yëpp képp ñu doomu Allemagne sax da nga koy am soo ko amul doo liggéey yooyu noonu yëpp maa ngi moom danaa la ko dugalal lu gis tey mbokk yëpp fàtte ma sànni ma léegi béy yuy taxawaalu ci mbedd day sax lañ gën fonk si ma li ma daj si ñoom ma dem ba jaratuma dara dara dara damay dem ba ma soxla sax dund li ma lay wax ni billahi wala tax lii laay dund si sama biir fan tey nee naa la béy wala xar wala xaru yefal bu ñu yefal tey moom lañ gën a fonk si man te wallahi kër bu ñuy fanaan sax man maa ko daw seen yaay terrain la ba amoon terrain ak ñetti terrain kër ma tabax kër ga mu def ñetti terrain moom mu jaay te wallahi lu tax tey dañu liggéey ma def ma yi nii yëpp tey pour ñoom la parce que man maa ngi amoon kër bu ma dëkk Sénégal dama fi ñëw comme Dakar Saint-Louis lépp moo neexee dama doon ñëw tey nag dem aéroport dugg aéroport sax mënoo parce que yoroo kayit bu la ko mën a dugal dëgg la yor naa samay document man mosuñ maa ripule mosuñ maa jàpp police mosuma parole ak police sama lépp baax na mais mënatuma ñibbi te sama compte mu ngi am xaalis lu métti laay tudd tey samay mbokk ñëpp abandonné ma ñëpp képp ku ma doon jàppale tey ba tax na tey sama benn kër xarit laa nekk bis parce que mënatuma gannaaw yàlla nag yaakaar naa leen su ma sañoon bëgg naa ku ma dimbale ku ma dimbale tey yàlla tax ma dellu fële ma nekkoon samay mbokk yi nga xamante ni tey nee nañ man doot ay d'accord sax dootuma fa dugg dañ xam ne nekkuñ yàlla bu dee sama ndox def na foofu naa dugg dama doon jàppale ñu bëri dafa nekk tey sénégalais tey soo demee ba am problème ñëpp ñoo lay daw dama jàppale ñu bëri ñu bëri su ma la waxee rek bu ma bokk ak ndey ak baay mu ngi Espagne fii nii moom Libye la jaar mais man maa ko envoyé xaalis te jël risque def lu garaaw ma ne ko su bu dee da nga bëgg mënuma la defal invitation parce que bu ma amee xëy yàggul mais mën nga jaar fi ma jaar man bi may dem Europe bi may jaar yoon libre bi aw ma fu ma yóbbante xaalis mais nekk fii mën naa laa dugalal xaalis kooku maa ko envoyé mais cinquante euro bu gën a tuuti mosul ma ko nangoo jàppale te fii ma nekk amul kenn ku ma dimbalee gisuma mbokk ñëpp bàyyi nañ ma lu nekk mën na ma dal nga paas bu ñu ubbi woon antenne bi. wax nit ñi nañu wax coono bu ñu dund. Mm, mm, mm, te mbokk teg leen ko. di nga dégg yeneen yu gën a garaaw. li ma lay wax mooy. déglu leen ci 77 157 17 nga déglu seen ay témoignages. waaw ah, ba noppi. Ndiaye mbokk. Mm-hmm. xam nga mbokk dafa mbokk deret. Mm-hmm. soo génnee Sénégal dem feneen. Sénégal ba ngay dajal mooy sa mbokk. Hmm. mais la majeure partie ñooñu ñëpp koo ci ji teranga safaan lay teg sa kaw. waaw ah, mais non préciser aussi am na exception nag. non waxuma ñëpp de. am na am na ñoo ah, voilà am na ñoo xamante ne ji moom. bi ñu nekkee ci problème la ñu xam njëriñu mbokk. Ah. nekk ci problème nekk ci jafe-jafe ci la ñu gën a xam njëriñu mbokk. parce que yàlla da leen a baaxee mbokk yu baax. am na ñoo xamante ne ji nag problème yi ñuy dund. mbokk leen ko teg parce que yàlla da leen natto mbokk yu bon mais lu mu ci mën di doon rek nañuy nañuy rafetal daa mel ne heure bi jot na de kii nag bëgg naa ko jaamu yàlla ci moom de kan ci moom waa ji moom waa ji de waaw li ñuy njëkk def de mooy li ñu ko daaj ñu wekki ko bu dee daaj nañ ko parce que ci biir yoo xam ne na dañ koo liggéey hmm. bu dee mën nañ koo dimbalee loolu après nag li des mu ngi ñëw Euh, ñu bàyyi leen ak Boubacar Boubacar Dieng mu tënkal leen xibaar yi. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères mi ñu indil Gambie di vite fait Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous savon bu baax bi te efficace di savon créole marque Infinix mi ci gaamu téléphone bu baax bi Real Mix Premium Energy Drink batterie automobile Sisa ak Malaysia Fresh Care antitranspirant anti odeur qualité italienne ñoo leen doon may seen émission xalaas.